Adam alayhi salaatu wa salaam fii ci résidence Al Amine euh, ana tey yan kàddu nga yëkkati ci bés bii ak li fi xew tey ji maa ngi sant yàlla baax julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur sañ sëñ Babacar mi waral lii yëpp Aziz nag sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay moo topp ci man nekk ni ku baax xir rek moom moo waral mu def lii parce que ku ne xam na ne sëñ bi nee na gàmm amul waaye bëgg a bëggal nit ñi moom moo tax ñu def lii ñu koy ñaanal nag bu baax jàmm may ko wér ba yokk ko baax a baax a baax. baaxu Aziz Ndiaye Sénégal gépp di ko tudd waaye yéen ñii di mbokk defe naa ci yéen la gën a jekkee ngeen wax ko tey loo nuy baaxee ci Aziz ci anecdote loo xam ne tey euh, dund nga ko ak moom nga mën ñu ko baax. Aziz moom man sama rakk la mu mu topp ci man daf ma bëgg ñëpp dañ naan Wouly ak Aziz dañoo bëggante ba ñëpp xam comme ay cheikh ma koy ñaanal yàlla Aziz mënu ma wax ci moom lu bari parce que sama diggante ak moom kii ñoo bokk benn papa xam na li may wax. dafa ay defal lu nekk ci àdduna yóbbu na moo màkka ay màkka yóbbu may na ma kër defal na ma lu nekk ci àdduna mënu ma koo fay ay bëggul sax ma toog chaque jour mi ngi bëgg pour ma dem liggéeyi chaque jour mu ngi laaj wëli looy def chaque jour mi ngi def nangam parce que loolu baax rek moo ko waral ma koy ñaanal yàlla nag yàlla may ko wér ak gudd fan ay doomam màgg ba aw ko di sant nag sama ñaari waajur yi nga xamante ne ñoom ñoo waral yëpp sama papa ak sama yaay di gërëm ñëpp def mention spéciale jabaram parce que góor su baaxee tamit jabaram moo ko dooleel parce que Miss jabaram ni ko baax la bëgg ma bëgg sama njaboot bëgg mbokk as yëpp ndax tey ji jigi kër su baaxee jigéen moo ko baaxal kon boog ñoo ngi ñaanal ñëpp léegi ñaanal gàmmu gàmmu ko ay gàmmu ay gàmmu gàmmu yu bari ci barke Seydina Mouhamed waa kay. enchaîné rek yaay booy waaw loo ci dolli ginnaaw nga présenté wu ñu lay seetaan rek. salaamaaleykum maa ngi tudd Khoudia Ndiaye di sœur si Aziz di kontaan torop ci gàmm gi di ñaanal suñu frère Aziz Ndiaye amuñu fayam parce que xam nga yow lii yéen a ko gisal seen bopp. li nga yor ci sa loxo ndekki gi am na solo de. ah laa koy yóbbul am na solo gis nga yii yëpp moom la Aziz bëgg nañu bëgg ay rakkam bëgg ay waajuram dañoo bëggante ñun da nga naan sax ñoo bokk ndey ak baay ndax mbaaxam Aziz yow boo ñëwee yow mi ko xam ne yaay gan gi sax moom moo lay dalal oyof na baax na. am na yëg ci nit lu mu am bokk na ko ay nit mbokkam buñu nee nit baax na la dañ naan ndax mbokk yaa ko wax Aziz baax na yëg na ay mbokkam bëgg na ay mbokkam di sant tamit suñu waajur yi ndax lii lépp ñoom la ñoom ñoo ko liggéey suñu papa Ala Ndiaye suñu yaay Xadiloo Xuja Diop Gaajo Ndiaye ñu ngi sant ñëpp di jant sant tamit jabaram Miss Ndiaye moom it ku baax la vraiment ndax yii yëpp jigéen góor dina baax sax mais jigéen mooy defar sant moom daal gàmm yàlla nañ ko fekk at yu bare man Khalil Ndiaye laa tudd Khalil Ndiaye di rakk ci Abdoul Aziz Ala Ndiaye euh, tey bésu gàmm gi euh, yan kàddu nga ci yëkkati ndax gis nañ déjeuner royal petit déjeuner royal bi nga xamante ne tey amal nañ ko ci résidence Al Amine. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi lay nuyu bu baax yéen waa Sénégal di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu su sant suñu ñaari waajur di sant Sénégal yëpp di sant suñu mag Abdou Aziz Ndiaye di ko ñaanal yàlla gàmm gi bi Seydina Mohamed du ci waaye def rek doo ko rëcc. ñu ngi koy ñaanal yàlla mu ngi koy mën di ko mën ay ati ati ati ati mu yàlla bàyyi ko fi sàmm ko bu baax a baax mu koy gën a mën lii tey nag bis la boo xam ne tey lu ci waaye def la doo ko rëcc bis la boo xam ne bis ki nga koy defal mën na boppam mën na kanamam mën na ginnaawam mën na lépp loo koy defal rek maanaam ku yàlla xool boo waxoon ne ko yaa yaa gën di mbindeef tey bisam lu ci waaye def rek da nga ko war a def. te eh, lu ñu mel nag Seydina Mohamed la. lu ñu mel Seydina Mohamed dañ ciy dañ ciy kontaan bu baax a baax. defe naa témoignage tey ci Abdoul Aziz Alla Ndiaye ci yéen la gën a jekk yéen ñii di mbokkam di frère am ngeen bokk njaboot gi tey sa frère Aziz Alla Ndiaye tey loo nuy baaxee ci moom ci témoignage. ñoo bokk ak moom ndey ak baay moo ñu mag toppuñu si moom toppaatuñu si moom mais boo ñu fekkee boo ñu fekkee fi ñu toogee ñun kase day mel ne ñun moom moo judd dem ñun ñu judd tey day mel ñun ay morom wala ñoo bokk benn bu buñ judd ndax wàcc gi mu wàcc boppam baax gu mu baax yaru gu mu yaru xam nekk nit ku ëmbul nit ku nit koo xam ne tey du mer xam nga bu mu lu Aziz loo ko mën def loo ko mën def bu meree une heure deux heures mu mu mu wàcc nekk nit ku baax nit ku yaru xam nga ñu ñaanal yàlla bu baax a baax lii mu mën nii bu koy gën di mën ay ati kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax. ñu fàttali ci moom lu la marqué. Ah, na man ak moom dañoo dund ay histoire yu bari ñu ci rek. waaw tey moom bésu mbégte la donte bésu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye da ciy baax léeg-léeg tamit yéen ñi bokk ak moom xam nga ngeen am lu ngeen ñu baaxee loo dund ak moom loo xam ne marqué na la ba nu tey ak dangay xam da nekk xale ak erreur loo mën def def erreur da ngeen woo ngeen nekk si néeg ngeen waxtaan xam te kenn daan na la dóor de di la koŋ wala yooyu waaw waaw loolu mënu yàq parce que sarak moom bu nekkee xam nga sarak moom bu nekkee ci lu jubul xam nga tey di ngeen tey ngeen dëngoo suba ngeen def lii ëllëg da ngay xam ni mag la yow rek yaa topp si ginnaawam nga topp si ginnaawam rek mais xam nga histoire mënul ñàkk mais sama waay la suñu xarit lañu ñëpp benn la famille bi doo xam ne ku bokkul ndey ak baay ku bokkul ndey ak baay ñu ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko rek àll. kon dañuy dañuy dañuy nañoo nañoo Pape Maguette bu mu daw. kooku àll.